def na maroom def beesam macha allah ñëw ci li nga xamante ne moom mooy mobilisation bi jigéenu euh, Benno Bokk Yaakaar bi def fii ci Ndakaaru dañ koy nuyu rek d'abord bala moo dugg moom ci waxtaan bi madame la ministre ñu ngi ñu mobilisation bi tey ngeen xamante ne jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk Benno Bokk Yaakaar ànd koog euh, madame Ndeye Saly Diop Dieng ministre euh, de la femme euh, de la famille la protection de l'enfance ñu bëggoon rek nga wax ñu quelques mots rek li nga xamante ni moom mooy sentiment yi ngay am ci mobilisation. waaw dañu ñëw tey jàppale suñu présidente nationale madame Ndeye Saly ndax ñun jigéen ñi jàpp nañ ne mooy suñu tête de liste ndax bu la ministre Diouf Sarr ñëwee moom mooy suñu tête de fas yéene nañ ko wan taxawaay ngir jàppale ko ngir teg ko Dakar ndax jàpp nañ ne moom ci wàllu boppam bu ci ànd ak le ministre Abdoulaye Diouf Sarr Dakar dana mel ni ñu bëgg Dakar dina nekk dëkk boo xam ne dina génn ci fuccoo ci xeex dem ci liggéey bi. dafa mel ni mobilisation démb bi nag dalee na dalee na tiital waa waa yeewi askan wi. te ñun yéeguñu sax lu waa yeewi askan wi di def li ñu yëg mooy ñun li ñuy def te li ñuy def mooy liggéey boo xam ne dañ ko teg ci yoon teg ko ci saafara jafe-jafe yi nga xam ne moo ne biir Dakar. ànd ko clear ànd ko investi yoo xam ne candidat yoo xam ne seen taxawaay ci réew mi seen xarañte stable du ko muy le candidat Abdoulaye Diouf Sarr ñun ñëpp gis nañ li mu def ci Covid bi gis ko li mu def ci ministère de la santé muy le ministre de la femme nga xam ne bi mu ñëwee am na ak yu bëri yoo xam ne jigéen ñi am nañ kon seetuñu lu keneen def li ñuy seet mooy ñun li ñuy def li ñuy seet mooy orientation yi nga xam ne président Macky Sall jox nañu ko ñu jëmale ko ci askan mais da cee faalu xamal nañu ne Macky Sall dee na suul ko rek moo des waaye bala ñu koo suul nañ patt bakkan yi ndax borom pexe la. Abdou loolu dafa nekk wax yoo xam ne dafa aajuwul ci jamono yi ñu ndax réew mi nga xam ne mooy Sénégal dañu bokk ko dafa nekk lu am solo dafa nekk lu am kon lépp loo xam ne dañ ko war a taxawaree rek donte dañu nekk ci politique bëgg foo bëgg réew ndax mobilisation waxtu moment de concorde la de symbiose. mais du tere ñu xam lan mooy fondamentaux de république te fondamentaux de république mooy tey ñun ñëpp askan yi kenn ku nekk ñu bokkandoor di xàccandoor di dóorandoor daje bii ñuy daje tey loolu la xàccandoor dóorandoor jàppale suñuy candidat te man mi nga xam ne maay tête de liste commune danañ taxaw taxawaay bu mat sëkk ngir Sicap Liberté bokk ci ñuy fal Abdoulaye Diouf Sarr président Ousmane Sonko nee na du signer charte de la paix en vue des prochaines loolu aussi lan nga ci wax. waaw ñun paix ñu mën a wax. paix ñu mës a wax. paix la ñu a laajte. paix ñu mës woo. bañ nañ ko ba suñu président le président Macky dafa instauré journée du dialogue national le 28 kon loolu ñun ci suñu ADN la bokk. soo ne Benno Bokk Yaakaar da naan coalition jàmm ak salaam ku bëggul signer sa charte. di wut koo sox loolu sa mbiru bopp la xam naa ne dina xeexal boppam wala mu xeex ak ngelaw mais ñun li ñuy xeexal mooy li bi bëgg li ñuy xeexal mooy ñu am jàmm li ñuy xeexal mooy ñu am salaam. jërëjëf madame la ministre jërëjëf.